que bu yàlla defoon par exemple tey demoo deuxième tour. Mm ton soutien va aller à qui inéluctablement au candidat de l'opposition ou mun nga envisager puisque nga ne Macky Sall bokkatul mun nga envisager une alliance avec les de camps. fii ñu toll nii tey tey tey tey fii ñu toll nii tey xam na il faut na nga xam suñu particularité man tey je suis un candidat boo xam ne nekkuma ci benn coalition nekkuma Yewwi par exemple Yewwi ñoom dañu am seen charte. nekkuma ci beneen coalition ñun ñoo nekk di def suñu coalition Abdourahmane 2024 te actuellement ma yow ma sax ma dugg ci yooyu le nombre de mouvements yi nga xam ne ñu ngi ñëw di ñu rejoindre pour ñu lancer la coalition Abdourahmane 2024 kenn xamul nu mu toll ñu mënuma jël une décision personnelle li ma xam tey fi ñu toll nii bu doon situation bi tey la ñun on soutiendrait un candidat de l'opposition inéluctablement dafa am ñu may bokkal coalition ñooñu bu ñu ñëwee dinañu wax mais yaay a réalité bu fi am xaw ma lan laa gëm et ça fait deux ans que je le dis néew ma nag maa am raison mais sama gëm la te sama analyse politique Sénégal foofu laa ko teg pour man le prochain président de la République du Sénégal ci opposition bi lay jógee man loolu depuis deux ans maa ngi koy wax nañ ci bàyyi xel yàlla rek moo xam ko muy jox nguur mais électorat Sénégal ni mu met ni mu nekkee président Macky Sall ni mu géré nguur nguuram nekk ci mbartal boo xam ne day daanu par force pour man ku mu fa teg nga nekk candidat wam ak passif boobu mënoo sax dem deuxième tour. alors c'est conviction. alors donc opposition bu ñu góorgóorloo tuuti fa la le prochain président di mel maintenant nag appel bi may lancé et c'est là où la concordance vient dañu nekk ci tournant du Sénégal am pétrole am gaz pour la première fois le président sortant nekkul candidat man li may ñaan ëllëg mooy nañu bàyyi xiiroo ak ñaayoo yi man de bu ma gañee ëllëg. ku ñu jàpp sax ne sama adversaire politique la dinaa dem seeti la pour nga ñëw ci jox liggéey. di nga jox talal ñëpp loxo. ñëpp loxo xam nga démocratie deux tours dafa injuste. même waa APR ak Benno Bokk Yaakaar. dama ni la ku fi am compétence sa loxo set lekkoo alalu Sénégal bi mën ngaa ñëw liggéey ak ñun xam nga démocratie deux tour xam nga lu tax mu injuste ki nekk troisième moo ëpp moom la mooy ëpp pouvoir ki nekk deuxième bon maintenant peut-être ça bu ñu defee affaire chef de l'opposition bi mais dans l'histoire politique du Sénégal kii day jël P ki jël deux ak ay cinq pour cent ñu jël ko sànni ko ki jël troisième ñëw nekk premier ministre ànd ak ay. mu pour man yooyu c'est des injustices. Mm. askan bi daf ne kii yow 10 laa la jox kii 20 jox la 30 mais pour man waruñu négliger benn parti ci askan bi loolu mooy laay woowee démocratie de concordance mais waxuma transhumance mais parce que tey supposons mu am. cinq cent mille sénégalais yu votel benn candidat candidat boobu am quinze pour cent mais kooku est-ce que xel nangu na à moins voilà est-ce que xel nangu na pendant cinq ans nga déroulé boole woo ko ci dara mais cinq cent mille sénégalais yooyu ko votel fan nga leen teg man loolu laay woowee démocratie de concordance léegi bu ma nekkoon président tey opposant bi ma gën a sonal xas ma saaga ma bu dee cinq cent mille sénégalais dañ ko votel dina la ko ee eh, saa waay